jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte tey di la 14 août euh, le 14 août bu ñu ko waxee xel day dem ci bis bu rëy boo xamante ni jam production moo ñu woo fële ci arène nationale Fils de la ak Goro tey ñu ñëw ci kër kenn koo xamante ni ci parents yi la bokk ñu tuddee ko grand combat bi muy Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy ñu ñëw këram xool ay xaritam xool ay bokkam xool ay njagañaalem xool moroomu sëriñ sam sëriñam bi nan la ñu ñëwee ci bis bi soutenir ko ci bis bi Ibrahima kaay xaritu yàlla bi Ibrahima xalilulaa xaritu yàlla Mor Cissé maa ngi lay nuyu de sëñ Mor Cissé ngi noonu ah, sëñ Cissé ngi noonu liiru jaan sëñ Mor maa maa ngi lay siis ayca mën nañoo dugg ci biir ayca kon bisimilah yaa may dalal salaamaaleykum maa ngi leen di siyaar de maa leen siyaar bu baax a baax a baax Alioune Seye de Lirou Diane ndeysaan njabootu làmba ngi noonu sëñ moor nuyu naa la de. fay bu baax baa jëli. baa yaa waaw maa si jàmm bu baax alhamdulilah. ci bis boo xamante ne dañu ko jamaïcain da koo jël. tuddee ko kenn koo xam ne mun naa ne daanaka sa lépp la muy sëriñ Cissé mu Serigne Babacar bis bi ban yëg-yëg ngeen ci am. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di nuyu kilifa yi fi toog yëpp Cheikh Baye Thiam Yacine sëñ Moustapha Dramé Lamine Aline Seyde Lirou Diane euh, Serigne Cissé sunu rak sunu xarit sunu mbokk sunu lépp defe naa mbégte ak kontaante moo ñu indi ci bés bi ndax Cissé moom ku rafet xol la nit ku baax la baatu ya baax suñ amoon lu ko gën a fort dañ koy ab wax ko mm. mais nit ku baax la ku gore la ku am yëg-yëg la ci nit ku rafet xol la waaw te moo tax nag ñëpp teew fi nii parce que nit lépp lu am ci nit rek yaa ko may sa bopp kon su fi ñëpp teewee rek defe naa mbaaxam la yëg-yëg bi mu am ci nit ñi la sutura gi mu am ci nit ñi la moo tax ñëpp ñëw teew fi bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ndax dinaa faral di wax ne benn minute bu romb ay milliards munu ko delloo siwaat te ñëpp bàyyi nañ heure yu bëree bëri ngir ñëw fii pour teewal ko te kanam yi fi gis yëpp ni ñu diñ ñoo fi nekk. Mm-hmm. ñu am fulla mm-hmm. ñu am fayda mm-hmm. ñu xam seen bopp. ñu respecté seen bopp respecté nit ñi kon boo ñëwee gis nit ñi ñëw toog fii rek xam ne ñu ko respecté ñoo ñëw loolu nag euh, cër bu rëy bu mu am ci nit ñi moo waral lool moo tax ñu siy bëgg di ko ñaanal mu jig ko yàlla defal ko ci jàmm defal ko ci xéewal defal ko ci barke defal ko ci sutura ba Euh, ba ñu yàgg ko di ko di fekkee at yu baree baree baree baree bare bëri bu beneen yoonee ak yeneen at yi ñëw ñun ñëpp yàlla bu kenn manqué yàlla nañ ko fekkee at yu baree bëri yàlla defal ñu sutura defal ñu xéewal defal ñu bark mais macha allah daal nit ku baax a baax a baax la Cissé mii nag dama koy faral di wax man sama wayjur bu góor bi mu gaañoo jaamal ki ko taxawu ba jullee ko juróom bu góor moom bi mu génnee àdduna kooku moo ko taxawu moo ko julleewaat hmm. ñoo bokk benn maam ay doomu baay lañ tamit sama maam it nag moo sànc ñoom seen dëkk ca Sine Mademel kon dafa yàgg du Ndakaaru fii mais dañ ko àndee ñëwaale Saalum bokk ñëwaat fii kii nag nekk sama xarit Baye Thiam Yacine nekk sunu kii sëñ Moussa Dramé la tamit sunu mbokk la kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ci question bi ci leeral yu am solo yooyu Baye Thiam Yacine maa ngi lay nuyu di la tey ñu tuddee bis ki nga xamante ne mooy Serigne Cissé mu Serigne Babacar mu nekk sa wóolare nekk sa lépp ban yëg-yëg nga am ci bis bi tey. alhamdulilah salaatu wa salaam ala rasulillah ñu ngi leen di salaam wa rahmatullah di nuyu ñu fi teew ñëpp euh, ñëw ci bis bi nga xam ne bis bu màgg la ci ñun ndax suñu xarit suñu soppee ci yàlla moo xewle te nit ku ko xebal bisam rek na la boole ci ay nonom yàlla def nag ñu nawal ko bis bi lool moo tax ñu bàyyi suñu yitte yëpp amoon ngant pour teew ndaxte démb ci heure bi suri nañ lool mm-hmm. fi nga xamante ni mooy ca biir Saalum mm-hmm. waaye dañoo dagg suñu yitte yëpp fa yéene fekkee ci bis bi loolu nag li muy tegtale mooy mm-hmm. foor gi nga xam ne Serigne Cissé foor na ko ci ñun nga xam ne ci lum ñu mënta woo ci kaw suuf rek ñun dañ ci teew te dañ ci teew ak euh, liñ man teew ci ak doole teew ci ak taar ak mbégte ndaxte ni nga ko waxee léegi sëñ moo tudd na ko ci gannaaw sama xarit la sama soppe la moom moo tax ma xam Serigne Cissé mu Serigne Babacar kon su lii amee ñu dajee ci bis bii nii ñëw fi tey bisu mbégte la ci ñun ñu ngi nuyu mbooloo mi ñëpp di ziar suñ mbokk suñu xarit euh, Moustapha daraame kuñ sopp la tey lañ door a dajee ci jëmm di ziar jëmm yu fi teew mooy mboolem ku fi mbër rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di leen nuyu yéen bu baax a baax di wax ne bis bii daal su fekkoon ne am na kaddu gu ñuy wax gu romb kàddu kontaan nañ dañ koy wax sëñ Cissé nag ñu ngi koy ñaaral yal na yàlla yokk euh, li nga xam ne moom ay jëfam yàlla xubbi ko bu baax a baax te bis bi yàlla nañ ko yàgg a fekkee ay at yu baree baree baree bëri ba yeneen i bis topp ci yeneen i bisaat bis topp ci ndax ku am njëriñ la nit su amalee nit ñi njëriñ rek su boobaa nit ñi soo leen wooye dañuy dal di ñëw ci yaw ku ñu ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm di wax salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay jaajëfal bu baax kàddu yi am na solo mbokki sénégalais yi ndax ñu bari xam nañu ko ma lay nuy bu baax sañ sëñ Moustapha Dramé boroom yàlla ay kese noo def ñu ngi ñu ngi defee di jëlee ci yonent Yàlla moom mm. di sant ñëpp di mm. waaw. tey ñu tuddee bis ki nga xamante ne mooy sëriñ Cissé mu sëñ Babacar Sy bëgg nañ xam seen diggante yéen ñaar ak bis bi tey ban yëg-yëg nga ci am. waaw sëñ si ba sëñ Babacar moom lu ma diggante moom du lu mu mën a nekk di tudd mm. waaye lu ndaw rek li ma ci wax mooy dama mos xewle benn journée bu ñuy wax journée si xamante Tijaan benn wëllëreem sëriñ ni moom. man moom ñamuto ñëw ci journée ba caméra yi tiim ko nit ñi di xam diggante moom Serigne Cissé ak di xam sama diggante moom ni mu mel. Mm-hmm. amaana dafa yaakaar ne en général ku bañ loolu nag dafa dafa mel nekk ci njub. Mm-hmm. ni boo nekk ci dëgg nekk ci lu jub ragaloo génn fenn feñ fenn ci lu lu xaraam. su si ba sëñ Babacar si. Mm-hmm. jógee fii ba sama kër. ab bi njëkk laa wax bi nit fas ni mën ko gis. ñëw ci journée Cheikh Tidiane toog. wan ma carrément ne ma am na fa ma toll. kon nit bul lii amee ñun mënuñu lu ñëw jëmmal ko ndax nit kenn du ko luwe. stade ba dañ koy luwe stade bi la war a amee xam nga dañ koy luwe kii dugg da ngay dagg lu muy am am valeur nag jëmmi nit ko ëpp ñun nag kenn duñu luwe mais dafa am lu ñu jiiñ moom ñu loolu nag mu ëpp ay milliards. loolu lool la ñuy sëriñ si jiiñ yaakaar naa ne lii moom keneen ku ko mënoon xew la ci Sénégal ku mu mën ko dox. ku doo fa gis. senegal gii 17 millions de képp ku ñu fi tuddee woon làmb. laa doo fa gis ku dul ku dul Serigne Cissé Babacar Sy kon bu xewee war ne moom toll na moom fu ma kenn tollu jaral na ma lu ma kenn jarloon nag. ñu ko ñaanal yàlla rek nit ku ñàkk noonu la nag. dama ko wax ne ko yow dama lay xoolee. Aji Aji Mansour Mbaye. Hmm. Aji Mansour Mbaye. Hmm. lamb ji boo demee. Gris Bordeaux ak gàngooram ànd na nekk benn benn nit. di xàccandoo di dóorandoor. lu nar a ñaaw ñu ñàkk ba mu rafet. noonu la amee ci géwél yi. Aji Mansour Mbaye. Aji Mbaye peex ñoo ñëpp. lu nar a ñaaw ñu pekk mu rafet. Hmm. ñu ni suñu biir nag Serigne Cissé day nit koo xam ne. bu sañoon dara du ñaaw. bu sañoon lépp rafet. bu sañoon seq ñëpp jàmm. moo tax doo gis mu mu dal ci kaw kaw benn sëriñ benn nawleem. di ko wax nu wartu wax comme man ni may def. Mm-hmm. kon loolu li wone mooy. waaw comme moom comme moom li wane mooy. Ah. moom jikko ju jikko ju yowin la yor. jikko ju rafet la yor. koy ñaan yàlla rek li koy mm. mais làmb tey ñu ci bari gis nañ ni mel sëriñ si am na ci ñoo xamante ne sax boo leen ko tuddee ñu daw lan lan ngay wax ci loolu tam. waaw dama doon wax démb lay waxaat rek. Mm. làmb ñaari mbëri nañu bëree si làmb jooju làmb dafa xaram. ah déglu ma rek sëñ ni ko xam nga sa bopp waaye dafa bokk ci xam jamono ak xam àdduna hmm. li sëñ si seen nangoo nga nanga koy def xam nga si Mountakha Mbacké dama gis démb hmm. mu dalal benn femme ki daan défendre Adji Sarr hmm. jox ko soixante milliards Gabriel bëri na mu ne war war ko recevoir mais pour lan soixante millions loolu moo tax war ko recevoir boo dee kilifa da ngay am xartu làmb xartu mbër xartu géwél xartu musicien xartu sëriñ kenn ku ne da ko uuf ba delee ko ci ko si ko ci yàlla te du ñaaw loolu si ma tax baa koy def ku jóg dem mu uuf la parce que moom moo yor jukko ji yàlla gërëm mun si yéen salaam ba ne ko wa innaka la ala xulqin azim loolu nag moo amaat ci nit ku nekk am na jukko boo jël si yéen salaam ba nit ku nekk rek ay jukko mën am rek nga mën ko recevoir. seen six dafa recevoir benn ci ay nitam. ci wëllëreem ci ay mbokki mbërëm ci ay mbokki promoteur am am kuy tëgg làmb tuddee ko ko mu jël ko peeg ko uf ko ko si njaboot nga bokk mënu ma wadaw ci biir loolu nag ci la koy fekk moom it nag ba dellusi ko ci yàlla ndax xam nañ ci ko. macha kon moo taxit. Mm-hmm. làmb ji ñu ko tuddee. Mm-hmm. amuñu problème ci loolu. Mm-hmm. ndax xam nañ ne su làmb ji jàllee dana toog waxtaan ak ñi ko seq. du tee muy leen yàlla lii la bëgg lii lii la lii ñu jëfee ko ñoo ko jëfee nag loolu yàgg na fi. kenn ku ne am nga loo gëmut kon moom it képp ko daw ñu tëddal làmb ah say engagement la waaye moom it na ko dëgg yàlla comme jikko bi leer moom mënu bañ dara day toog rek ñu ko si mu tàmbaake ku ñëw mu uuf la. am na solo ñu. waaw Cheikh Ousmane maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay sa dégg nga seede yi sëñ Cissé wax léegi ñu lay jox sa wàccuwaay bu baax tey nag ñu dara jaal bés Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy bëgg nañoo xam seen diggante yéen ñaar ak bis bi tey ban yëg-yëg ci am. alhamdulilah gannaaw bañ sante yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñu ngi nuyu suñ mbokk yi nga xam ne fekk nañ leen fii ak yéen ñi nga xam ne tamit fekk nañ leen fi ngeen jiitu njëw fi depuis lii mu am ba léegi ñu ngi gis nu ngeen ciy sondee ak nu ngeen ciy taxawee waaye lépp loo gis rek dafa am bés te Serigne Cissé mi dafa doon nit koo xam ne nit ku baax la yelloo na lu ne tamit wax dëgg fa yàlla bañ xamante ñun ak moom yàggut waaye jikko jum ñu wan mooy jikko yiw ak jikkoy nditi yàlla ba ñemeloo ñu boppam ba ñeme ko moo waral mu ooñu ñu ñëw nekkul ne nag ku ne mooy xewle rek ooñu ñun ñu ñëw waaye ñun dañoo bokk métier mi nga xam ne moom lañ nekk muy métier ñaan yàlla mu nekk ci nag di jub di jubal sell ba pare sellal di def la nga xam ne moom la mag ñi sopp muy ñaan di ñaan muy nangu loolu moo waral mu invité ñu ci liyam nga xam ne nekkul ne dañoo ma dina Baye ngir njëw nag nangam sangam loolu jëmm sëñ Cissé moom moo ñu indi. parce que nit ku ne sañ nga bu la defalee teraanga wala mu jila dara bu xewlee xataa buñ ko tuddee sabar sax ñëwal bul xool sabar googu xoolal jëmm ji nga xam ne moom moo la tudd moom moo ñëw moom moo la yëgal nga ñëw kon sant nañ yàlla bu baax gërëm Mawlana Cheikh al Islam Alxaaji Ibrahim Niass mi nga xam ne ñun ci keppaaram ci lañ nekk te ci lañ bokk wax dëgg fa yàlla am sant nañ yàlla bu baax te man ak moom nekkul ne lii moom moo ñu boole bu ñaan demee ba dem ba xam ne dara desut maa ngi moom ñoo bokk fa ñuy làngee nag moom taalibe Seydi Hadji Malick la may taalibe Mawlana Cheikh al Islam ñu bokk beelam tariqa boo xam ne moom lañ jàpp kon man ak moom bu lii demee ba jeex ñooy bokk fa ñuy làng ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ndokkeel bu baax ci bésam bi di ko ñaanal yàlla di xamal ne alhamdulilah yàlla baax na suñu xol moo fees ba mënatuñoo wax waaye sant nañ yàlla bu baax gërëm Baye Niass ak Seydi Hadji Malick ak Serigne Touba jërëjëf kontaan nañ torop macha allah. jërëjëf ku muy ñaalal kurpañ la lay jébbal muy alin Seye 2 maa ngi lay nuyu bu baax tey ñu fekk la kër sëñ Cissé mu Serigne Babacar Sy ñu tuddee ko drapeau jamay kay tuddee ko bis ban yëg-yëg nga ci am. waaw Baye Djily ñu ngi lay ziar jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm sutura tawfeex di ziar képp koo xamante ni mekk mbokk internet nga rek maa la jox sa wàccuwaay di ziar sangu yu tedd yi ñu fekk fii yëpp mm. wax dëgg yàlla di ziar euh, sëñ Cissé mu sëñ Babacar mm. waa suñu teewaay fii moom wax dëgg yàlla leen waralu ko lu dul mm. wax dëgg yàlla liiru jàng moom suñu mag la suñu xarit la te liñ naan sa waay waay sa waay la loolu waral suñu teewaay mu bëgg liiru jaan fonk ko jàpp ko am ko fu mu ko teg liiru tamit bëgg ko fonk ko jàpp ko am ko fu ko teg ba tax na suñu teewaay suñu teewee fii war nañ fee teew mm-hmm. waaw ngir yàlla ak jëmm liiru jaan mm-hmm. waaw ba pare teewaa la def alam ndaar ndax moom uh, wólëre alam ndaara te alam sama mag la mënuñoo ñëw mënuñoo ñëw ba yeggal te duñu wax ci événement lamb yi gisoon nañ sa combat boo xam ne ñu ngi ko doon dox combat boobu mujjeewul sa sotti nee nga sax làmb jooju dootoo ci waxati xëy na xàcc boo gis wërsëgu waay la euh, fi mu toll nii Alioune Seye 2 yaa ngi waaj wala promoteur yi ñu ngi lay contacter ndax dégg nañ sax am na say combat yu ñuy démarrer waaw man maa ngi nekk ci la ma nekkoon rek nekk sama ruq rek ànd ak waa écurie Walo ànd ak waa Guédiawaye am na combat bu ñu doon démarche mais li ngay bëgg ak li yàlla dogal yenn saa day ute xëy na loolu yàlla na ma adversaire bi ñu doon dox am na beneen adversaire man maa ngi toog di xaar daal dégguma dara lu ma yàlla jox rek ma jël te xam ne loolu laa yelloo waaw. waaw am na ñu koy wax am na ñuy wax ñeneen ak ñeneen ñeneen mais képp ko. sa diggante si tamit am na ñu ko. waaw yooyu yëpp gaa yi ñu ngi koy wax ci suuf. mais làmb moom moo fi bàyyi. wax dëgg yàlla non man làmb moo fi bàyyi ñooñu mënu ma leen a bañ ndax def nañ ci làmb loo xam ne war naa mën a bëree ñoom mais képp koo ma làmb boole mu raisonnable ci kàttanu yàlla sama staff nangu ci man aw ma problème yooyu yoo xam nga ne sax man aw ma problème mu bëree kii que soit waaw jërëjëf. maa ngi koy jaajëfal moom Alioune Seye 2 nañu tourné nii. nuyu di la si waat. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla. maa ngi si jàmm ba alhamdulilah Cheikh Ibrahim. tey mu Serigne Babacar nawle yëpp dajaloo fi ban yëg-yëg nga ci ah, ñu ngi sant yàlla beneen yoon di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem bi fi toog di rafetlu yéen seen liggéey di ñëw ci keppaar gi nga xamante ni keppaare sant yàlla waaye. keppaar goo xamante ni ngër mànde la mm. ah sëñ Cissé na wax dëgg yàlla mu nekk nit ku baax nekk kuy yëg nit macha allah ah, dëgg la bañ xamante moom yàggut ñu ngi ànd ak ñu ngi ànd ak délégation bi nga xamante ni mooy sëñ Ousmane Niass bu jóge ko Medina Baye waaye li yëpp sant yàlla rek ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko tawféex defal ko taysiir yàlla yokk mën-mën bi yàlla moo xam fu mu bëgg ak yàlla na fi yàlla àggal ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim ci barke yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam am na solo lii te mu sëñ Babacar si fekk fi màggatu astafurlah liiru jaan non damaa juum damaa juum ne màggatum jaan non dama juum sa diggante ak sëñ Cissé bisu jàmm la tey jàmm moo ñu fi indi bisu jàmm la am na yoo xam ne bul tax ñëw fi di ma ko wax bul indi coow non dama lay man du ma sa morom soo bëggee morom nga wuti ko sa morom fii tey bisu jàmm la hmm. waaw jàmm moo fi indi hmm. bisu mbégte la hmm. bisu bànneex la. Mhm. waaw tey xuloo indiwuma fi. mais ni ngay juumee noonu laay juumee. waaw non non dama la chaque jour de la première fois. Mhm. maa ngi koy seetlu ci yow lii du la première fois li ngay def nii bàyyi ko non dama lay wax nu ma sa morom ko. ok waaw. tey sa bis bi. mën naa ni bis bi sa bisa ndax dañoo tuddee Serigne Cissé mu Serigne baaba Sy te ku foo tuddee ne Serigne Cissé ñëpp xam nañ sa diggante ak Serigne Cissé ci dëggu bi ci bëggante bi te cofoo ko benn yoon tey ban yëg-yëg nga am ci bis bi. kontaan rek am am ci mbégte bu baax a baax a baax a baax ndax nee naa ko jama jamay kee juumoo hmm. jamay kee juumoo. jël drapeau bu toll nii tuddee ko sëñ Cissé bis du tuut borom lay tollool bis du tuut borom lay tollool sëñ Cissé ndax liggéey na ko ci réew mi liggéey na ko ci àdduma bi nga moo tax mérite na ko lii jamay kenn def nag juumul waaw man la ko defal at keneen ak kenn ak at ñëpp la ko defal ñëpp la ko defal ndax sëñ Cissé sëñ Cissé ñëppul waaw ñu bëri nag soo waxee sëñ Cissé liiru jaan man yaatal naa man damay partagé damay partagé xajal naa ñëpp yaatal naa ñëpp sëñ si sëñ si ñëpp la man damay partagé. damay partagé waaw sëñ Cissé ku baax la sama sëriñ la sama xarit la te waa mooy suukoon neex na waaw loolu la nee na mooy suukoon neex na ba pare tey bisam bii dina alaa daw me de hmm. ah way ah gëj ñoo gis sama pooj ah oui. ah oui. waa pooj naa. pooj bu bees boo waa benn naa génne benn pooj bu bees boo xam ne sëñ si laa koy tuddee tey. ndax sama sëriñ la. sama xarit la. moo ay ci man. moo aay ci man. satatati ratat muy satatati. waaw. ah. boobu moom mënoo ko. sama ngénte sat satatati waaw. sama ngénte li jaay laak neex. muy satatati yër mu naan mu saf saaf satatati yëpp xam nga temps yi dañ leen gën a tooñ ma ne ma temps yi da ngaa kontaan da ngay wee waa sant yàlla yàlla naa yàgg kontaan. ay waa yàlla na yàgg kontaan te bisu tey bi dama ci am ñaari cër. sëñ Cissé mu sëñ Babacar ñu tuddee ko drapeau. ah waa fils de Balla ah. sama doom sama rak sama xarit war cee bëre. Hmm. tey drapo sëñ Cissé. ah. waaw comprendre nga xam nga bis yu mel noonu su amee. du sa rak. an ñoom ñëpp samay rakk la sama ñaar rakk ay bëre. waaye nag damaa bëgg fiis de baala daan ko nag muy drapeau bi ñëw góor sama rakk la Fils de Balla sama doom la sama rakk la waaye damaa bëgg Fils de Balla daan ko nag après ñu jël drapeau ñëw géejooy feete ko ñaareel ba hmm, euh, së euh, kii si ak euh, borom kii global textile moom da cee am drapeau tey Assane Fall sama rakk sama xarit ku baax bilaay dëgg la wóor na yàlla léegi bilaay wallaay sama rakk la sama xarit la mais dañ ko liggéey ci réew mi te loolu rek moo am solo baax na ñu dem day wax la sëñ Cissé ñu ngi lay ndokkel di la jaajëfal tey bis bi Jamaïcain da la ko duppee mais cofoo ko benn yoon gis nañ fi say nawle ñaankat yëpp say xarit mënuma duma wax sax say nawle sëriñ mais say say say rakk say frère say xarit say doomu ndey ñëpp gis nañ ñu ñëw teew tey ci bis bi ban yëg-yëg nga am ci bis bi tey. Ah, dañuy santaat yàlla. julli ci sang-sang yi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ah, di nuyoo ci baatu asalaamaaleykum. ñii nga xam ne ñoo toog nii ndax kenn ku ne xam na ne ci lu nu nekk ñun am na lu réservé wu ci sunu jëmmu waaye gis nga nit boo amee njaboot njaboot gu ne da koy fekk ca nam ne nga jëm caa jàppalanteeg moom waaye su suma bokki bopp yi ñëw euh, muy sëriñ Ousmane Niass mi di seetu Maulana Cheikh Ibrahim Ah, sëriñ Moustapha Dramé borom yàlla ay kese. Ah, muy nit ku baax ah, sëriñ Baye Yacine. ñi nga dégg ma tudd ci seen tur. tey ci tey buñ demoon ba Macky Sall ndigal jib na. ñooy bokk horaire. billaahi la si ñooy bokk ñooy bokk benn horaire. ñooy bokk benn horaire kon ñoom ñooñu seen bopp la nu ñëwal ñëwalu nu ma. ndax man yëf yi bi ko jamaykee tegee ci sama loxo dama ne lii mbiru sëriñ si la du sama mbir mbiru sëriñ si la sëriñ Mor Cissé suma mag muy nit ku baax waaye lii lépp lépp bu amee euh, euh, lenn rek lenn rek ma tuuse ci bis bi muy sama jigéen suma xarit ajaratu daba booy yàlla na yàlla yeesal yërmande ci kawam ca jotaay ba keroog bi ñu ma njëkk a tuddee làmb mm. heure bii moo fi Pape Malick taxaw nii ci mbiri añ yi mm. moo ma ca taxawaloon waaye nag benn tali si kàttanu yàlla yàlla na yàlla guddal saw fan Pape Malick defal la fan wu gudd ànd ak wér waaye Adja Daba da doon nit koo xam ne mënuma ko gaaw a fàtte muy nit ku baax doon soppeeb Serigne Fallou di xaritub sëriñ Babacar Sy yàlla jël ko ci fan yi te lu ma jogaan rek maa ngi ñoo koy ànd ba mu jeex tàkk kon Adja Daba maa ngi ñaan yàlla na yàlla euh, yeesal yërmande ci kawam. lii nag ci nuyoo la ñu nekk su may soppee ñëw bopp ñëw Alioune Seye di nit ku baax ñëpp jëwee ko benn kàddu muy yaru ak mbaax. ak noppi du wax kenn lu ko naqari kon Alioune Seye di koo xam ne duhul li ñuy wax làmb moo wax dëgg mm-hmm. waaye làmb ñi mu war a jox résultat joxagul leen ko ndax man li ma wax dem Modou Lo ne naa ko ku ne xam ne ne man làmb dama caa yàgg mm-hmm. euh, sargal war na fi suma rakk ñëw na Serigne Cheikhouna sëriñ Cheikhouna euh, borom jaaru bi tey moom tey moom na tey nañ ko denc rek. denc ba nga ñëw denc ba ba estaat ba estaat. nga ñëw sa kër xarit sa doomu ndey sa wóolare sa lépp sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar Sy ñu tuddee ko drapeau gis yéen seen wàllu sëriñ si ñëpp dajaloo ban yëg-yëg nga am ci bis waaw ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu santaat yàlla bu baax di siyaare mboolem kilifa gu fi teew nit nit kenn ku ne ñamee liggéeyal ndoon lay àndal nit kenn ku nekk bu xewlee ñi di xaritam la war a gis suñ ci se sunu xarit la sunu mag la sunu lépp la bon bu mag bii di làmb nga xam ne euh, maanaam lii mu def nii ñu tëddee ko làmb ji buñ ko ko tuddee ñun la war a gis moo tax lu dagg suñu nit yëpp ñëw donc ko ci ñaanal yàlla gën ko ci defal tawféex di siyaare boolem kilifa goo xam ne fekk nañ ko fi suñu xarit la sunu wóllëre la sunu lépp la sabar sax buñ ko tuddee woon moo woyee ba ñëw waaw loolu ak xarit la waaw fu riiree ne ma jaara bi foo nekk ju àdd mm-hmm. te loolu moom na ko ci a fekk ki mën def loolu nag bu la tuddee buñ ko tuddee làmb bu la wooyee da nga mën a dagg sa yitte yëpp ñëw loolu ñu fi indi loo dagg looloo tax ñu dagg suñu yitte yëpp ñëw. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. macha allah ci seen maa ngi lay jox sa wàccuwaay di la siyaar tey ñu tuddee drapeau Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy yëg-yëg bi ban yëg-yëg nga ci am. waaw sant rek sant yàlla bu baax a baax ni ko suñ seex naa waxee léegi hmm. da di wolof da lu dagg lu ne morom ji lay fekki. te ñun amuñu lu dul li ñu seq muy yàlla ak yonent bi sëñ Cissé di nit ku baax moo tax buñ ko tuddee làmb ñu dagg suñu itte ñëw te moom sëñ Cissé mii mbaax gi ne ci moom ak jikko ju rafet gi ne ci moom ak fonk doomu aadama gi ne ci moom ak respecté nit gi ne ci moom tax na bu ñu woowoon ci yéeyum kaani sax ñëw yooyu la ko waaw loolu moo tax ñu dagg suñu itte ñëw di ñaan suñu boroom yàlla yokk ko te wéral ko te muccal ko te aar ko ba lépp lu mu yéene ci bis bi ak yeneen bis mu defee ko ni mu ko bëggee barke Sëñ Tuubaa jërëjëf. maa ngi lay jaajëfal